équipe bi de yaakaar bi ma ci am moom yaakaar bu rëy laa ci am de comme ni ko Sénégalais yëpp amee rek euh, surtout aussi ñu boole xol yi boole suñuy xalaat ñun ñëpp jàpp ci rek euh, pour équipe bi vraiment li ñu yaakaar ci ñoom ñu am ko quoi. waaw Coupe d'Afrique bi nag moo xam naa du yomb parce que xam nga foofu aussi euh, ña fa dem ñëpp li Sénégal bëgg lañ bëgg donc il faut ñu jéem a boole xol yi daal surtout suñ ko boolee rek incha allah yàlla mun na ñoo may ndam quoi waaw et ñu demee ak esprit de gagnant daal. loolu rek moo ñu manqué waaw mais moyen yëpp daal vraiment état bi def na ko pour équipe bi jëm ci kanam quoi waaw man daal loolu laa ci gis quoi di leen ñaanal daal incha allah euh, jour final ba Sénégal jël coupe bi indi ko Sénégal. bon équipe bi comme d'habitude liñ ci xalaat mooy en tout cas am nañ équipe bu baax am nañ équipe boo xamante ni bu motiver rek am engagement bi moom vraiment ak joueurs yi ñu am des joueurs renommés yaakaar nañ ni dinañ ci dinañ ci mën a génn. mais comme ni ko suñ président doon waxee rek barki démb day mel ni engagement bi mooy def à chaque fois te fu Afrique moom dafa am ay réalité il faut que mu am benn détermination bi ak benn en tout cas rigueur bi pour mën a gagner coupe d'Afrique. Ah bon Sénégal nag chaque année day am day am day am équipe day am équipe bu baax xam nga mais fighting bi mooy des il faut ñu wone xadar ci biir terrain bi suñ bëggee gagner parce que naar ak euh, euh, souvent euh, ivoiriens yi wala ñag yi ñoom xadar lañ ñuy gën a ëppale te loolu bu fekkee xel ak xarañteef Sénégal franchement football kenn mënu leen ci mais il faut ñu ni xadar bi daal. vraiment am naa yaakaar ni Sénégal mën na jël coupe d'Afrique des nations bi parce que xale yi dañoo xiif génération bi ñu am nii nii gëj nañ ko am depuis 2002 kon mën naa ne fi mu toll nii bu nekkee ay joueurs am nañ ko bu nekkee ay qualité am nañ ko kon mën naa ne fi mu toll nii là où nous nii. bu ñu góorgóorloo tuuti yàlla dinañu defal ndam te yàlla ñu yàlla defal ndam bu set wecc wecc wecc wecc wecc jël coupe bi ko Sénégal comme ni ko président Macky Sall waxee quoi. bu ñu xoolee comme que Edouard Mendy bokk na ci les meilleurs gardiens Kalidou Koulibaly meilleur défenseur Sadio Mané meilleur attaquant Idrissa Gana Gueye fait partie aussi des des des de terrain en tout cas renommé aussi kon bu ñu cumulé ñett yooyu nga ñeent yooyu ñeenti joueurs yooyu rek war nañ mën a def def def différence ak ensuite notre jeune joueur puisque nous sommes des Diourbellois Bamba Dieng wax dëgg yàlla bu ñu ko mayee temps de jeu aussi ñun am nañ ci moom confiance par rapport ak li muy wane ci Olympique de Marseille en tout cas bu ñu amee bu ñu amee plus Bamba Dieng moom wax dëgg yàlla suñu xel dina dal lool lool lool ci ñëpp lañ am yaakaar parce que ñoom ñi fa yóbbu yëpp ku ci nekk rek ndaanaan nga fa nga nekk ci équipe bi ngay football quoi moo tax ma ne ñëpp laa yaakaar man yaakaar bi daal ci ñëpp laa ko teg waaw ñu boolee bu ñu booloo rek incha allah yàlla dinañ may li ñu bëgg quoi waaw am naa ci a musta ñàkk jour li ma la wax rek euh, il faut ñu indi euh, xadar bi dëgg dëgg gaynde bi bàyyi gaynde gaynde kii quoi kii nañ indi bàyyi teraanga bi indi vrai lion bi xam nga indi fighting bi ci biir spirit bi ci biir ci biir terrain bi xadar bi loolu moom moo ñu manqué ah mais du question qualité jour Sénégal musta euh, musta manqué ñàkki jour Euh, Karim Seye ba ay ñoom Roger Mendy Bokandé El Hadj Diouf ñoom ñëpp ñun mës ñu manqué qualité suñu problème mooy xadar bi xadar bi il faut ñu ni ko ci terrain bi il faut gars yi am jom xam ni dañu yëkkati suñu drapeau national jox leen ko ñun ñii fi taxaw ñun ñii dañoo fubal ba tas dégg nga fii Sénégalais boo dox ci mbedd mi rek. fubal la man taalibe yi koo gis mën na fubal ñoom bu ñu leen joxee suñu équipe dàq ñoo fubal ci réew mi dañ a toan sélectionné sélection la ñuy wax ñoom dàq ñoo fubal fii de ay junni junni Sadio Mané ñoo nekk ci terrain bi fii mais il faut ñoom ñu xam ni dàq ñu ñoo fubal suñu leen joxee suñu trophée pour ñu indi coupe bi la dañ leen a tànn ci par parmi quatorze Sénégal euh, quatorze millions sénégalais ñu tànn ci vingt deux kon moom ils ont ils ont l'obligatoire pour ñu pour ñu def le maximum seen seen seen seen euh, daraja boobu yàlla jox leen bañ boole leen ci 22 yi ñoom il faut tamit ñu rendre la monnaie maanaam def xee xeex bu mag ci biir terrain bañ xam ne ñoom ils ont mouillé mouillé mouillé la main xoolee quand El Hadj Diouf El Hadj Diouf El Hadj Diouf ko contre contre bu ñëwee ci terrain bi day day def le maximum ñoom nañ nañ wan a jom jooju xadar bi bàyyi kii bi góor day dëgër quoi na dëgër. waaw ñu ngi koy xaar vraiment man mii sax pour dire vrai mayom laay dem jënd ji nii ndax man moom laay supporter. Diourbel la ñoo nekkandoo woon fii di fowandoo ensemble xamante nañ bu baax mais gis nañ ni gis nañ ni daal am na fu mu yóbbu surtout la raison te ñu ngi koy ñaanal aussi mu am Coupe d'Afrique boo xamante ni bu nekk bu meilleur ba li muy séntu ci carrière aussi ñu am ko kon waa Bamba Dieng na xam ne ñun Diourbel yëpp ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi préparé sax beneen ah euh, beneen fans club ndax am na fi benn fans club bu jigéen boo xamante ni ñun góor ñi ñoo koy engagé di ko man di soutenir ci kaan bi ci fan zone bi ñuy def. Bamba Dieng aussi waaw doomu Diourbel la kooku moom bon mun naa wax ci moom parce que bi muy gën a nekk xale dañoo bokkoon milieu bu ñu dëkk quoi muy cité ouvrière fii man cité ouvrière laa dëkk fa laa màggee laa defee sama enfance yëpp boo finalement léegi maa ngi seeseen mais Bamba moom daawoon naa ko gis bi muy gën a nekk xale muy football ci biir xale yi foofu. waaw mais am naa yaakaar ni daal vraiment euh, li ñu yaakaar ci moom boo tax ñu yóbbu ko équipe national euh, dina ko prouver dina prouver loolu dina wane loolu quoi incha allah. moom ñun moom Diourbel on est tous derrière Bamba Bamba Bamba Dieng. on pour lui ñoo ngi koy ñaanal nañ ko ñu ngi koy wax ni su fekkee mën suñu kàddu dina si jot ñu ngi koy wax ni moom. amul lenn lu muy ragal na dem na dem à fond bu am benn complexe na na na na jouer à fond na football footballam na am jom ci biir bi loolu rek su ko defee incha allah bawol lépp ngi ci ginnaawam te dina am ndam incha allah.